pour pour pour pour signaler wu ñu ni tamit wax ne dafa am lu ci bëgg a wax moo tax ñu def ko dañu gis ñu bari dañoo romb nañ fa Kumba Gawlo romb nañ fa Kiné Lam romb nañ fa ñëpp mais dañoo jël bi bi bi président di takkal Viviane médaille taxal ko photo boobu pour wane ne moog Viviane dañoo am problème moo tax ñu jël wax ci dóor ko ci kaw Viviane loolu tamit est-ce que c'est normal. ben c'est pas normal. Euh, te logiquement sax loolu normalul ndax Viviane. dafa am yoonam tiiti am yoonam mhm. ñoom ñaar ay woykat lañ mais bokkuñu ay registre Viviane ak tiiti bokkuñu registre tiiti registre bu muy woyee Viviane du woyee registre boobu mhm. donc loolu waruñu sax jinjël ñoom ñaar di leen jéem a concurrencer certes nag ñoom ñaar peut-être ñoo nekk xaw a maase ci génération tuuti Viviane mag tuuti mais tiiti topp ci ginnaaw te teewul ñi bokkandoo di tëgg Mhm. tey jii booy xool musiciens yi nga xamante ni ñooy tëggal tiit yi ñu si ëpp des fois dañuy voyage dem ci Viviane Viviane ak tiit yi yëpp booy xool Viviane ay musiciens ñi nga xamante ni dëgg dëgg dëgg ñoo fa kale bu dul Moussa Traoré ak tëggkatu sabar boobu Babacar ak Bakkan Seck ah ñeneen ñi si des ñëpp ay requin lañ requin mooy koo xamante ni tey dañ lay jël nga tëgg ak Bilia suba nga tëgg ak Assane Ndiaye suba moo tax ngay gis musiciens yi di changé ñoom ak tiit yëpp arc booy xool ay musiciens Pape Diouf ñu bëri ñoom ñoo koy accompagner. parce que Sénégal dafa am problème musicien. Mhm. instrumentiste. Sénégal moo am problème mu instrumentiste. moo tax ñu leen di kii loolu. Mhm. Kumba la ñoom ñëpp moo leen mag. Kumba ba muy commencé di woy. Viviane commencé wul woy. Kumba ba muy woy Soweto. di woy ay seytaane. boobu fekk xaajagul woy. Mhm. jamonoy kàddu xale yi Abdoulaye Lam RTS ORTS. <laughs> tous les mercredis à partir de 16h. yàgg waaw. jamono yooyu waa gëstu bu Malika ñoo fi newoon. ñoom ñoo doon tur ba ñoom caamaas xam nga caamaas benn. waaw ñoo daan fecc ay théâtre di def. gëstu bu Malika waaw gëstu bu Malika caamaas fa la newoon. Eh, ñoo woyoon woy boobu woy bi doon ubbi salaamaale nay réew mi nuyu nañu leen ci turub gëstoo ñoo ko daan woy. àllarba bu jot 15h Lam moo daan présenté émission ba. am concours bu mag bu amoon. concours boobu nag dañ doon boobu jamonoy apartheid Nelson Mandela ñi koy def centre culturel Blaise Senghor ñu ni léegi nag dañu bëggoon kenn ku nekk boo ñëwee nga way Soweto ku bagaw la sekk keroog moo jël pee ku bagaw la fola faqee ko boobu ay tiiteeg Viviane yi kenn xamu leen ku bagaw la daa am ba pat mbir mi ñu wax salaamaaleykum maaleykum salaam mu jël ensemble jiit stade de l'amitié taxaw naan saytaane kii moo ñu laqal ñu ngi koy fàttaliku ay Evatra bi ne T TFM ñoo ko doon feccal jamono yooyu Evatra benn kon xam nga ni Sénégal ñu fi xaw a yàgg ni xam nañ culture bi ni mu mel culture Sénégal dafa yàgg dafa am fu mu jaar ba àgg fii tey tiiti mhm. ba mu nekkee Guinée di fa liggéey daje fa ak Youssou Ndour Youssou Ndour dajeeg moom Guinée mu ñëw ne ko damaa bëgg woy woy ngay def dafa neex Youssou Ndour ni ko fekk ma Sénégal boo ñëwee ma jàppale la Youssou Ndour mu ñëw fekk ci Sénégal Youssou Ndour Youssou Ndour jàppale ko tiiti génn commencé woy parce que trajectoire yi mu Viviane moo daan awu Youssou Ndour nekk ak moom di aw ak moom di ka aw Viviane Ndour daaw ñu ko Viviane Chérif lañ daan wax muy aw Youssou Ndour di ko aw di ko aw di ko aw di ko aw ba finalement Youssou Ndour commencé di ko wane di ko wane di ko wane di ko wane ba Viviane dem ba mu yàgg créé groupe boppam Jolof Band la ko gën a yokk doole nag mooy rek Youssou Ndour ñëw ne ko Thiès def ko soxna takk ko muy bugg a Ndour ñu am ci ñaar ñii nga gis nii tey moo waral Viviane kon nag culture yu Sénégal ñun xam nañ fan la commencé ba fi mu àgg nii tey ku nekk la nga ca am rek da nga koy mérito tiiti bokkul ci ñi ñu woowoon pour jox ko d'accord on est d'accord parce que bokku ci fenn rek laa d'accordul ci li mu wax parce que wax boobu boo ko waxee rek am na leneen luy looy bàyyi suuf médaille yu yàlla moom ma intéressé boobu j'aime pas wax boobu voilà wax boobu bugguma ko munoon na ni nice na rek lu rafet la mu ci la waaw mu yem ci mais am na looy wax naan médaille yu yàlla moo may intéressé médaille yàlla bu ko intéressé na muuru ibaadu. médaille yàlla. xëy na tam waxin déedéet am na wax yoo xamante ni doo waroo ko wax médaille yàlla bu intéressé tiiti na dem muuru ibaadu bàyyi micro bi bàyyi woy bàyyi pàccal yeeg dangal yi ak pàccal yeeg dangal yeeg affaire yooyu na ko bàyyi. munoo nekk ci lii di dangal di paccal di def lu la neex di génn sa cër bëgg am médaille yàlla munul ne dañu may jàmm ah. bu ñu gars yi wax de. ay médailles yàlla moo may intéressé affaire bi du foofu de artiste nga aar ngay def jàppal ni yow yaa ngi def sa aar mais bul toog naan ay médailles yàlla médailles yàlla bu ma intéressé yàlla dafa am lu mu ñu wax am lu mu ñu digal ñun ñëpp xam nañ man dama naan way nekk artiste xam nañ li ñu yàlla santaane ay médailles yàlla moo ñu kii Macky Sall am na ñu moo doon jox médaille jox na leen médaille jeex na moom joxuñu ko médaille na na na rek nit ku nit ku ëmbul da ngay parce que fii nit mën nañ ñëw ñun ñëpp fekk ñu fii ñu toog man Bilia Kourita ñun ñëpp mu am lu mu yëkkati jox ko parce que Bilia moo ko mérito bu ñu am benn xolub ki ñaan bi suñu ñun nañuy nangul nit ki cëral bi ko yàlla cëralee plateau bi bëri nañ fi kaat lañ mais yaay présenté buñ la ko nangul dañuy sonn àdduna da ngay nangu nangu dafay jàpp cëru bañ xaw ma ni ko wolof di waxee Viviane dañu dafa mérité. nee nañ nangu day teel a yombali dóor. waaw day teel a yombali dóor. Macky Sall gis na ni moom mi ngi waaj a jeexal. te ñii kat yàgg nañ ko jàppale. mu ni man kat dama leen di kii man dégg naa ñu ne Macky Sall sax dafa dem ba ubbi armoire gis médailles yi bëri des <laughs> mu ne wala su médailles yi su ma demee su ma demee a jël ko jomaay jëlee du a kii xaaral nag ma mayee médailles yi jox ko artistes yi ndax Sénégalais yi ñoom bu dee la ñuy xalaatee mais tiit yi dama bëgg mu gën a nekk laa yaay Fall buñ ko xamee man yaay Fall laa ko xamee mu nekk yaay Fall boo xamante ni batant la mën a way nag am voix am na fi jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi doon def fii anniversaire am grand théâtre la ca am yëpp biliyaa xeex bañ ko ca xeex ak coono yoo ko ca dal ba mu ñëw sur seen baat bi dee day fàttale ko te teewul xola da koo ñafe ba mu jeex man depuis boobu ba léegi laa fan tiiti ba pare tiiti fàttewul fameem fàttewul fameem ndax man dama ci xam dara frère am sama xarit la li may wax ci tiiti daf daf daf may wax ci tiiti ba sama yaram bi daw kon nag na continuer noonu rek Viviane lañ ko defal médaille yeeg yooyu na leen ñaanal yàlla na leen jig man de loolu laa di ñaanal yàlla na leen jig waaye médaille yàlla moom ma intéressé baat boobu moom rafetlu wu ma ko dara bu ko médaille yàlla intéressé na bàyyi woy mhm. euh, Bilia ban jàngat nga ci def par rapport ak ni ko gars yi jëlee moom bien vrai ba muy wax nag xëy na jubluwu ci Viviane mais ñi ko jël ñëpp Euh, relaté ko waat ñooy jël photo Viviane di ko dugal mel ni waxam ji Viviane la koy wax. ak lu ñu mënti wax euh, Alioune Badara euh, tëddi ndaanaan la. Mhm. Sénégal loo mënti wax. doo lim waykatu jigéen yi génnee ko ci. te yenn saa yi nit wax day wax lu am solo nee na bu doon way sans instrument baat kase la. gëm naa ne réew mi même jigéen du ko fi mën. ndax bu ne der da xam ne kii waykat la. mais gis nga Alioune Badara. lii cas bi li ko njëkkee mooy kan moo ko posé question. fal la dem bañ poser ko question. Matros Mbaye. nga boo amee invité Alioune Badara mettre ko en ba nga xamante ni doo ko jaxasee kenn Badara sama nit la de mais gis nga suñu métier bi Paa Ousmane dañ ko xoolaat bu baax. ah Xaadim boo dégg. Mhm. nit boo ko invité génnee na son ànd ceeg démb. mais accompagner ko ak son bi ni mu neexee sénégalais yi bëgg nañ ko. Ah. gaa yaa ngi koy challenge. première tendance ci YouTube. première tendance yaa ngi dégg ñu ànd son bu nice loolu kenn dootu ko werante ni son euh, Titi beeg Demba Guissé dafa neex ñëpp invité na leen ñëpp. spécial Korité ak Alima gis nga Alima Ndione invité nañ leen. Titi am am tournée européenne. nga invité ko wax leen ci loolu wax ci carrière mhm. mais pas. yow tey jii nii Pa Ousmane bu la leeree ni artiste na ñu ñëpp ay artiste ne ñu ne la invité nañ Alioune Badara invité nañ Billy Yaak Koudia takkal leen médaille yow la moo tax invité wuñ na takkal la médaille mais am na yoo xamante ne Pa Ousmane war nañoo xoolaat question yi bu baax a baax. ci première hmm. première première partie boobu laay ñëw deuxième partie. Hmm. Titi côté nii la Viviane côté nii la. Viviane fi mu nekk nii tey Pa Ousmane liggéey ak ko may. toogul ci benn rukk waxtaanul kenn dafa focus ci liggéeyam ba nga xamante ni ñëpp ñëpp xam Viviane foo mënti dem ci réew yi ci Afrique ci Europe ñëpp xam Viviane kenn dootu présenté Viviane liggéey nag Pa Ousmane boo ko defee dalay may yenn yi Viviane tëggul ci boppam rek ci benn way yaa ngi dégg moom fépp lay cuccab Viviane dafa dem ba dem ci dëkku jàmbur jàng seen wax nañu waxee dafa clip maanaam moom musique lim ko jaral la Viviane musique jaral na ko sañse yu cher nañ ko wax te dee hmm. musique jaral na ko bu defaroo danga naan kii du mag kii xale bu ndaw la maam ku nekk sa liggéey ak lim la jaral hmm. titi liggéeyam jaral na ko lu ne mu jege Guinée ñëw Sénégal nekk woykat ñëpp nangul ko ko mais dama ne ay médaille ay ñàkk médaille médaille yu yàlla Passeman ki ko mën a am rek foog ñu dem ba yoon ma xiyaam taxaw yàlla ne sambal naa la médaille foofu rek laa ko kon am ne de ah, waaw tax amul lu tax nit nekk na ci réew mi jaamu jaamu yàlla jàpp ni musul def bàkkaar dee yàlla mugal ko ah. nit nekk ci réew mii di def loo xamante ne dafa safaanoo dee yàlla tàbbal ko àjjana firdawsi maanaam yàlla xol lay fay am na médaille yoo xamante ni xëy na xëy na fi mu mën a waxee tamit mais ñaawulu leen ba pare mais Pa Ousmane nit ñi bàyyi di fukki ci benn affaire Pa Ousmane bu waxee rek bi li lay gaar waale pour lan pour lan waxuñu ne Kumba Gawlo lay gaar pour lan waxuñu ne euh, maman Kineel xam lay gaaruwaale. Mhm. mais dañoo focus si Viviane ndax lan. xëy na bu dee même problème am na seen diggante mais ñoom ñaar ku nekk ñu ngi sa yoon ku nekk ngi bay waaram. mais sénégalais moo bëgg ay détails Pa Ousmane ñu jàpp sit yëpp titre siti Viviane siti Viviane lay waxal siti dem na ba léegi sax man dama koy tiital bu génnee di wax na dañ naan lu mu wax Viviane day gaaruwaale mais waxi gaaruwaale nañ ko teg si suuf Pa métier bii muy seen mbirum aar bi ñoom ñëpp liñ ci war a lekk ala kulli xaal mënoo wax ba kenn du ko ci lekk. wërsëg moom mënoo lekk sa wërsëg lekk sa wërsëgu waay ku nekk li nga liggéey rek moom ngay am mais dama ne Pa Ousmane nañ bàyyi yenn question yi premièrement. merci. nit boo ko invité danga koy mettre en valeur wane li def wax ay jaar-jaaram loolu mooy tax ba tey boo invité keneen te nañ fàttaliku lu bëree bari gis nga yenn saay dañ lay mbubalee benn biir ne saa soo invité diw coow dina fa génn nañu moytu loolu te mm. Mandiaye Seck ba muy wax Waly ko Seck lu rëy la fan la ko waxee ci Padros Kéba Seck ba muy wax ka fan la ko waxee ca Padros maanaam ak lu bëree bëri même boo mënee sa métier del éviter yenn yi xarabuñ ko de fa ma njëkkee sànq ci mbirum Fadel Saw bi ñëw laa njëkk a ndax ki génnee wax jooju noonu ba mu siw ñëpp si si la nekk def ab revue de titre am nee na revue de presse ne da koo jagleel people attaqué Fatel ak Ndaaye. xam nga li tax mu may metti xam nga li tax mu may metti li ngay wax nii. pourtant mi xam na Patros daa bokk samay taalibe. Mhm. Patros tey mën naa ni. Patros mën naa ni mën naa moom mooy sa mooy moom mooy koo xamante ni maanaam si dafa jaar si man daal. kon bu juumee nga juum. waaw Patros depuis émission bi nga xamante ne moom lañ doon éliminé wal fajiri waaw boobu noonu seen générique ba man maa ko defoon daan bokk ci réalisation yi chaque jour xam nga parce que daan posé ay question bind yeeg yëpp mhm. ñoo ko daan bokkandoo maag moom dernière heure bi ñoo koy bokkandoo mhm. mu may posé ay question may tontu xam nga ba ni mu nekkee wax yeneen rajo dañoo dañoo dañoo xamante daal maag moom dañoo nekk ñu jege yoo ci animateur yeneen Habib Mbaye Patros laa gën a jege yoon parce que bu may woo lu may njëkk a wax sax Pape Ousmane no stress. moom loolu la may woowee. dëgg la li nga li nga seedeel ci moom. Ah. gor nga. gor moo mën a seedeel ci moroom gor mais Pape Ousmane. nit nag boo defee dañ lay wax yaa def. Mm-hmm. nit boo bokkee moom ndey ak baay mu def erreur sax bu jomb woo ko. ci ruubu yedd ko gis nga yenn saa yi damay dégg. ñu naan xool leen ñoo ngay def émission te pourtant ñoom ku jub si seen côté duñ ko wax. Mm-hmm. nañuy éviter ñun ko nekk ci milieu bi bu juumee buñ toogee fi dañ ko war a wax. dëgg la. ah Ousmane. DJ Boubs laay lay jox exemple DJ Boubs dul invité artiste ba xool ni bu la waxee yenn wax yi dinañ la yóbbu ci benn côté bi loolu lan moo ko may. néew ma Badouras amul professionnalisme de. Mhm. fees la da ko dell ndax fa mu nekk ak fa mu jaar ku mbabat tëgg moo fay jaar. te dañ koy nangul xam-xamam ak mën-mënam mais dama ne nañuy jàngat nañuy éviter yooyu day tax artiste dootu ñeme ci dem. plateau yi ndax jàpp na saa su demee ba xam nga léegi artiste bu ñuy dem nañ lay woon ne la poser ma question yi question yi bu dugg fii pour la la lool <laughs> te yow tey ñu nekk ci dëkku démocratie yow tey nga waroon a dem Pa Ousmane invité na la nga war a am xel bu dal boo xamante ne bu ma demee ca émission ba lépp lu ma fa mën a wax dana jariñ réew mi lépp lu ma fa mën a wax samay fans dinañ kontaan. pour confirmer la rek ki ma invité petit déj. ma bindal ma questionnaire yëpp ma lan la ñuy waxtaan. mais ñëpp Mhm. ñëpp a koy def questionnaire yëpp ma xam ci lan la ñuy waxtaan ngir ma préparer. mais ñëpp a man am naa xam naa artistes yoo xamante ni boo leen invité wala nga ne da ngay ñëw jël leen interview seen kër dañ la naan xaaral ma waxtaan gis nga suñ ñi ñuy waxtaana dañ ko naan carrément da ngaa jógee ci problème bi problème bi am nga bu naw ndax bu ñu la dañ la naan question yi lañ lay posé mais ñu xasee ba écran ay tàkk ñu la bëgg laaj dañ la koy laaj. effectivement dafa am yenn saa yow mii di dem posé da def sa xel ne dinaa ko wax li laa lay laaj jéeg laa lay waaye bis ma toogee ba écran yi tax xam nga foofu loolu recul mënatu fa am ndax fekk fekk na c'est lenn rek mooy mën a am nga ne ko loolu duma ci wax wala nga tontu ci loo xamante ne sénégalais nañ na kii lan moo tax mu wax lii ndax titi tay ñu bari ñu ngi koy ñu ngay ñaaw la naan dafa soxor waru waxee nii yenn si metti la mais nañ xam ni tamit médaille yi joxuñu ko pour ñi ni daa ko way kase xëy na dañoo tànn ñooñu kase ko tànn suba si yeneen mais xam lan moo gën a rafet. na ne maa ngi leen di ñaanal jàmm yeneen i médailles topp si. topp si mu jeex. mu bañ a beneen débat mais médaille yàlla foofu laa ko condamné. foofu la ñëpp condamné yàlla moom yàlla mooy xool ko ko neex ka ko soob ak kam ko saf mu jox ko ko. ndax dañ naa ségrégation fa mu njëkkee muy suñu borom. <laughs> waaw nañ xalaat loolu yëpp paasuma te jéem a rafetal. ñun ñoo bokk milieu bi ñun mënuñoo dem sans artistes yi la Waly Balago Seck waxoon rek mënuñu ma mënumaa dem sans yéen mënoo leen dem sans man ñun mënuñoo dem sans artistes yi artistes yi ñoo ñuy dundal artistes tamit mënuñoo dem ndax bu ñu woyee te wanewuñ ko du jar mm-hmm. bu ñu defee dara te wanewuñ ko du jar kenn du leen gis kon donc nañ jéem a rataxal diggante yi ba tey jii nii boo bëggee invité artistes na yomb ndax man bi yaa man artistes yu bëri xam naa leen mais boo leen bëggee invité dañ la naan ban site nga bokk boo waxee yenn site yi sax dañ la naan yee foofu moom carré ah, kaa duma ñëw rek loolu rek la ñuy wax nañuy éviter loolu Pa Ousmane d'accord solo ci euh, boobu lépp euh, jàngat ñu jëm rek ci Pape euh, Padros ak question bi loolu tam c'est important ñu soulever kan ma posé question bi ak question bi itam euh, lu waral mu mu jóg Korita ban njàngat nga ci def war ak hmm, waaw man je trouve que tey euh, premièrement mooy xam nga tey artiste ak animateur tey danga nga war a wone benn professionnalisme tey ba ku ci nekk boo toogee ci plateau du am kenn koo xam te ne si dafay gêné wu ci plateau bi ma jox la benn euh, exemple bu ndaw yaa ngi fàtte ba ñu invité Carlou di ci benn chaîne de la place imagine toi il s'est senti frustré mmh. ba demand di def vidéo il a même fait sur le plateau en direct la ko def mu ne leen vous m'avez humilié sur le plateau xam nga man boobu moom bokk na ci émission yu ma gën a déplorer jour boobu noonu parce que Carlou D ku ko xam xam ko ci mun woyam xam ko ci talent macha allah te loolu dañoo gis ni temps yi dafay commencer bëri euh, parce que tey nga nekk un animateur ou bien nga nekk un journaliste yow boo toogee say question da nga ko war a euh, segg seggaat ko mais aussi tu dois poser des questions pertinentes ba tey yow ki nga xam seen si moom nga invité dina ne bu paree après émission bi dina ne ah yow moom macha allah nit ku pertinent nga mais tamit xam nga wax dégg la laaj te wax dafa am solo. bëtt ci tey bu demee ba ne médaille yu yàlla moo ma gënal peut-être c'est juste wax ji dafa am euh, benn métaphore la utiliser foofu noonu moo tax wax c'est très important nit déglu ko hmm. euh, bu dee médaille yu yàlla mën na nekk médaille boo xamante ne c'est-à-dire man tey ñoom Viviane Kumba la dem nañ ba Macky sàll jox leen ay médaille kon man mii damay toog ba xaar yàlla jox ma ko des fois aussi wax ji duñ ko interpréter bu baax. pas d'accord avec vous. Ah, bu ko ah. neexee mu wax ah, loolu. man li nga wax nii bu ko eh, neexee mu wax loolu. mais ma su ko neexee mu ne médaille yàlla lay xaar ci droit xam nga lu tax muy médaille mooy tey jii. woowuñu ko fa ñuy joxee médaille. kon day toog ba yàlla jox ko médaille ba keroog muy am médaille. il a le droit de dire ça. loolu pourtant question bi lu fu mu waxee wax waxin dégg la laaj eh, xala joxuñu ko médaille mais day toog ba xaar ñu jox ko médaille man je suis d'accord avec elle est-ce xam nga tey euh, dëgg la wax wax dañ koy kii xam nga tey déglu ma man buñ ma joxul woon médaille tey mën naa ne joxuñu ma médaille waaye mun na am yàlla dina ma ko mës a jox comme noonu la ko waxee rek mhm. wax dafa mais mu wax comme ni nga ko waxee nii Kourita mën yàlla dina ma ko jox yàlla dina ma jox médaille la am médaille yàlla boo xamante ne elle par ses efforts loolu mooy médaille yàlla moo ma bi la très mal parlé xam nga mooy lan ah. aussi euh, gis nga Titi nekk na nit koo xamante ne si moom kenn la moom am na ko. waaw kon gis nga xam nga tey Sénégal lan lañ war a bàyyi. maanaam nit tey même bu fekkee on t'a pas cerné de médaille tey yow jëm si yàlla Papa Thione kan moo ko dàq way kenn dàq ko way kenn du ko lam. ba tey le te ay woyam ba tey nit ñi ñu jàng. mais ñaata di euh, dig su door la am. xam nga kon xam nga tey pour wax la ni loolu ay garab yi ñu lay takkal la rek. mais talent yow bu nekkee ci sa mbir ba pare man tëti bu doon maay moom sax ñu poser la question boobu noonu je vais pas répondre à cette question parce que am na yenn question yoo xamante ne kenn du ko poser nit am na c'est une question piège quoi. waaw am na yenn question kenn du ko poser nit ndax ki la nga si moom moo ko poser question bi peut-être piège la ko bëggoon tendre pour xool xam nga tey léegi yow boo répondre ci question boobu noonu yow da ngay mujjee waaye di foofu noonu te gis nga waaye di boobu noonu moo lay indil ñu lay euh, ñuy tegaat say vidéo ci internet. bi nga ñëw ci mbooloo wax ba yeewu sa bopp. wala nga wax ba yeewi sa bopp. mu ngi noonu moom nag dafa wax ba yeewu boppam. mu ngi noonu parce que ay borom xel la tey dégg waaw ma moo tax nag xam nga lu mu war a def. maanaam moo tax ñenn ci artistes yi ñoo war a am mat pourtant artistes yi bëri dañ koy ma plateau question ma arrangé wul je vais léegi tey lii mu wax nii médaille yàlla moo ma gënal ñu bari dañ koo mal interprété parce que ñoom benn jàngat rek nañ ci am xam nga mooy lan mooy Titi on a pas cerné de médaille léegi elle s'est sentie elle s'est sentie frustrée wala gênée wala elle n'est pas contente ba tax mu tontoo tontu boobu noonu te pourtant booy seet ba si biir amaana sax peut-être moom jublu ci woon loolu mais nit ñi ñoo mën a mal interpréter ay propos doomu aadama te loolu dafa baaxul même elle yàlla moo ma gën xamul àkkam xamul yeleefam xamul gëddëm mais mu xaar médaille elle a le droit de dire ça ku nekk fii xam nga tey liberté d'expression dafa am mais tu elle a le droit de répondre comme elle veut comme euh, animateur boobu noonu moo dem pose ko question boo xamante ne c'est des question nga xamante ne ça ne se pose pas comme ñoom peut-être fois du ñu jël seen temps bind seen question xam nu ñuy poser question artistes yi ak des questions pertinentes ndax yow nit mu génnee single tey Euh, ak euh, Demba Guissé mu cartonné lool nga xamante ne tey korité bi ku ko sinapul amul sama genre bi ñëpp sinap nañ ko woy bi neex ba dee nga waroon ko poser ci loolu ak ci carrière am nga koy wax ay wax yoo xamante ne moom bokk ci fekkeew ko nga bëgg ko cee dugal ci gaam boobu noonu kon bu doon maay moom damay tontu lu ko raw sax laay tontu nit ñi ñoo war a bàyyi boo invité nit di ko mettre mal à l'aise ndax humilier nit mënul weesu loolu ñu may wax à tout euh, tout le temps xam nga lan moo leen euh, lan lañ lan lañ kii jafe mooy euh, xam-xam moo ñu dese man je me xam-xam ak xam naka ngay waxee ak sa invité loolu moom bu fekkoon dafa am école boo xam te ne dañ koy jàngale sama genre gi man mii maa fa war a jiitu sax ndax vraiment jot na tey ñun média tey saa su ne Seydina Alioune du ma taay ci di la ko wax. Mhm. jot na ñu xool tey ñun naka nañuy dérouler suñu ay plateau jot na tey ñu xool tey naka nañuy woo ci ay plateau muy man muy keneen ak keneen war nañ ci def benn jàngat bu am solo. dina mm-hmm. am solo wax nii rek laay indi tuuti rek confirmer rek. Mm-hmm. mooy télé yi. Mm-hmm. tey jii dinañ la wax ni artiste bii rek nga am invité. mais tey télé yi dañu waroon am un préparateur koo xamante ne moom mooy préparer l' animateur. préparer ko sur tous les plans ci biir yaa nga invité. xam nga ci Bilia tuuti mu ni noo ñu defal ko génn dugg internet bi tapé Bilia laaj biographie amul artiste bu amul biographie xam nga nga xoolaat bibliographie am xam ci moom lu bëree bëri bëri ba boo ko posé question moom danaan kii lu mu lu mu demee nii question yi may posé mais man tey jii am na benn animateur benn animateur boo xamante ni bu mag la animateur bu mag la de Bilia mhm. invité na sama benn artiste artiste bi ñëw ba ci plateau bi mu xëy laaj nan nga tudd mu xëy laaj nan nga tudd barke Seydina Mohamed mu xëy laaj nan nga tudd mi ngi nekkoon Sen TV jóge na Sen TV dem TFM mu doon def émission di ànd ak pen Pendo jamono yooyu matinal bi fu mu di ngeen xam kan la. d'accord ñëpp xam ngeen kan la d'accord d'accord. li ñëw ba ci kaw muy laaj invité bi nan nga tudd. waaye invité sax di ko laaj moom bu ma déggee ni muy waxee sax dina xam ne te moom laay wax. Mhm. waaw carrément. nga soog ko wax invité bi nu mu tudd muy soo a jàpp tur bi après soog a commencé émission loolu nga foog ne c'est professionnel. loolu gars yi tey jii dañuy yore benn rajo rek di toog ci koñ bi di anime wala ñu am benn groupe whatsapp bu ñuy nekk di animé gars yi naan leen aay nga aay nga nga nga jóg dem wuti télé boo wutee télé ñëw ñu ñu dugal la ci tele bi booy dem nag sànce ba rafet xam nga def sa ay affaire ñu gis la gars yi jantal na dugal na ci télé bi fekk yow doo am niveau amuñu niveau animateur yu bëri fii senegal amuñu niveau soo ko waxee nag lan la ñuy wax grand bi dafa soxor grand bi dafa iñaan grand bi dafa kii ak nii ak mais dañu war a jaay taar la ñu nekkee ci télé yi xam nga di wane seen bopp di wax di màcc ay tuñ di def ay affaire yoo xamante ni daara jaaru ci yoon non animateurs yi góor yi si Sénégal il faut ñu xoolaat leen sama rakk yi ne ci télé yi ci télé yi am na si ñu bëri ñoo xamante ne ay jaay taar booy lañu jaay taar rek la ñu nekkee ci télé yi waaw jaay affaire de star jaay affaire de siiw boo leen woowee dootoo leen jot te ba ñu nekkagul dara koo si woo mu wuy la buñ toogee seen kër yi grand ma jàppale dimbali mu wutal ma nekk grand tele yu bëri fii mi ngi fii tele yu bëri ay booy yu fa bëri billaahi sama loxo bi te léegi man pour ma jot leen sax problème Basman foofu maa la ko ñaan xam nga nit lu ñuy naan comme ni ma la koy waxee xam nga sànq bu may wax euh, reconnaissance Ngaaka Blindé euh, noonu lay waxee euh, ñàkk reconnaissance bi nekk ci animateurs yi de xam nga da xool boo nekkee rajo bu mag nga invité leen ñuy ñëw sa plateau tey ñu dem ba nekk ci yenn site internet dong nag tajuñu fenn de mais Euh, da ngay gis boo leen envoyé message non seulement ils prennent du temps à répondre mais des fois boo leen tontuwaatee sax du ñu répondre te pourtant yow rajo bu mag bañ la fekkoon yow ah nga dalal leen tey wan leen yoon bi tey mais léegi ay simple site internet dañuy nekk yaakaar ni maintenant ils sont au sommet te mu leer na ni yow fi nga jaar ñoom xaaj xaajaat bi sax jaaruñu pa loolu nag euh, yàlla ñu ci yàlla mu tënk nit koo xamante ne il n'est pas reconnaissant te lii muy wax nii Pa Ousmane moom nekk na nit koo xamante ne ñim si jàppale tam bëri na lool wax dëgg yàlla parce que ba ñuy nekk ca rajo bu mag ba comme ni ma koy waxee xam nga foofu ñëpp a ko bëgg a jaar léegi ku ci nekk nga ko daan jël say émission mais ñàkk reconnaissance bi nekk ci animateur yooyu noonu kenn xamul ni mu toll mais nag bi moo tax looloo lay wan ni tey dañuy def ay failles yu bëri parce que da ngay jékki-jékki rek nekk ci benn sit internet léegi yow tu penses que maintenant tu as le le monopole du savoir ah nekk nga au sommet ba léegi yow euh, kenn mënatu la jot te alors que li nga war a jàng ak bëri te xolo fekk yow sa jàng dafa des lu bëri bëri bëri bëri ndax xam nga fan nga koy xamee mooy ci seeni ay émission buñ koy def da ngay gis ay faay yi bëri moo tax nag euh, di jàng saa su ne da ciy baax te bañ jël sa bopp teg ko au sommet. c'est vrai am na am am na animateur boo xamante ni mi ngi ci si ci maga actuellement nii. di def ay affaire di ñuy yëkkati di bóor ak boobu bi guddi gi ma ñëwee ci man ni ma diw moo a boole ak yow ma ne ko ah dañ ma boole ak yow mun ma diw moo ma boole ak yow nee naa nga jàppale ma. ma ne ko fi nga dëkk ndax sorewul mënu ma déedéet xam nga ko bu baax ma nax ko ndax fi nga dëkk sore na mënu ma déedéet ma ne ko demal nga reeri boo ñëwee ñu def émission léegi ci guddi gi dafa ñàkk tooy xet biliard ma ne ko demal nga reeri dellu si ñëw ñu def émission bu taxaw am problème parce que dafa tiit mu ñëw ñu def émission émission bi neex lool mu mën wax lool sax nekk ku mën a wax aka xam nga ba loolu amee ma ne ko dina ñëw weer bu dot dina ñëw dil ñëw ñuy dóor dil ñëw ñuy dóor di ñëw ñuy dóor muy ñëw ñuy dóor ba tey ji yàlla def na fa mu nekk nii parce que bu ma nekkoon su ma nekkul buub bi moom mooy bumi bi mooy bumi bi waaw ma nga fay dóor hmm. mais loolu yëpp si ay jaar-jaar la yoo xamante ni yow da nga fay jaar ak ay nit former leen xam nga am si loo jàpp si seen carrière mais comme yow fierté bi nga ciy am rek mooy nga nga ni hee waaye booy Aline o oh, xola maay booy dégg maay booy professionnel la yónnee la message bi la booy nii parce que man li ngay am man loolu laa la yéene soxlawu ma ngay wàcc di ma jox xaalis wala nga may wéew wala nga may orange mu ne di ma may déedéet soxlawu ma loolu l'essentiel reconnaissance rek nga ci am mais mais pas mais boo lay njëkk a wax doo naa tey damaa ñàkk jot aw ma benn temps Seydina Alioune ah, reconnaissance am solo mm, tey ki njëkk a jox micro du ma ko mës a fàtte mm-hmm. muy tonton Fallou Sène nekk Dunia FM euh, mu jël ma boobu maa ngi gën a nekk xale doon jàng nekk xale bu ndaw xam nga tey nit xale ñëw nga jël ko ñeme ko dugal ko ci rajo jox ko micro xaw ma sax lan laay wax man. xam nga xam nga kooku tey doo ko fàtte fu mu nekk tey da nga koy nemmeekoo te bu gisee ni tey nga nekk ci yeneen rajo yu mag wala nga nekk fereen fierté lay doon ci moom. léegi rek fu la woo nag da nga koy dem wuy ci invitation bu mu la woo parce que même dara tey bu la ñëpp xeebee moom moo la njëkk jox micro ndax nit ñi dañ doon ne kat xale la xamul dara xam nga loola. Mm-hmm. mais moo tax dafa am solo ci nit. Mm-hmm. mbir mu baax la reconnaissance am na solo trop muy euh, passage bu am solo boo xam ne jukkee nañu ko ci euh, question boobu nga xam ne dafa jóge euh, ci Titi ak réponse bi nga xam ne moom la ci jot a apporté Bara Seck Bara Seck Bara naa la ñetti yoon nag waaye te xam nga li ma lay wax lu mu doon sikk naa nag waaye sa sikk gii mu ngi bëgg a raw sama bos man dugguma kenn raw ma ci. mais encore di apprécier fii bi yaa waxee sànq nag. gars yi dañuy préparer seen. Ah, question surtout moo tax ma ni. Euh, ah. foofu am na leneen lu. da nga jam da ko jam quoi. donc il faut. poser juste des questions mais baa xam nga ne am na ñoo xamante ni ñoo ko tay tayef la du ñàkk professionnalisme de dafa am ñoo xamante ni dañuy bëgg à chaque fois ñu leen di tudd ni ñu leen di tuddee nag ñoom ñooy créer loolu. Hmm. bad buzz la rek. yaa ngi may comprendre am na am ay ay présentateurs yoo xamante ay animateurs yoo xamante ne ñoom ñooy créer seen bopp ay bad buzz. xam nga mhm. bad buzz bi mooy lan. ay invité naan daanaan naa fexe poser ko question boo xamante ne dinañ ko tudd mais buñ koy tudd dinañ ne dem na ci émission diw émission boobu lañ ko tuddee. bu ñu fàtte Pa Ousmane nit loo fay fay fay fay fay fay Pa boo reprendre bu dee ak noo mënti mel bu la yàlla wisee xorom barki arxuraanu kay pa Ousmane da ngay cartonné waat nice. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais lii tax may wax loolu dama lay wax man dama toog ak artiste mu ne dafa seetlu plateau yi nga xamante ne présentateurs yeeg présentatrices yeeg journal yeeg animateurs yi. bu seen côté ñoom maanaam lu bokk seen askan mooy ñu suñu askan mooy ñu yor micro yi. Mm-hmm. defee benn fayit ñu luñ toog ci plateau attaqué ko mu. te maanaam loolu dafa doon loo xamante ni dafa am mais tey jii nii Pa Ousmane émission lu mu rëy rëy Pa Ousmane que nga